Buonasera a tutti ragazzi, vi saluto come sempre, sono Mor e vi sto parlando dal Senegal. Un saluto a tutta la comunità senegalese africana, a tutta la diaspora che vive sul territorio italiano, ma faccio un applauso forte a tutti i follower che si stanno sempre seguendo sui nostri canali YouTube e Facebook. Oggi ragazzi parleremo esclusivamente del decreto aiuti. Avete visto che è un decreto che è stato varato il 17 maggio scorso, modificato il 2 di maggio e il 5. Adesso ragazzi il decreto è entrato in gazzetta ufficiale da ieri. Ci sono delle novità, come avete visto che per ancora per la terza volta è stata allargata la platea dei beneficiari. Quindi oggi vi parlerò di tutte le categorie di lavoratori, ma tutti, tutte le nuove persone che possono fare la, la domanda perché il decreto aiuti da ieri è in gazzetta ufficiale Ora stiamo aspettando un decreto che viene del Ministro del Lavoro e un circolare IMSS per chiarire sulla modalità delle domande e le indicazioni. Oggi parleremo delle nuove platee di beneficiari, ma anche parleremo di tutte le persone, lavoratori, disoccupati per settori di RDC che possono fare la domanda. Eh, assalamu alaikum, mbokk yi ziar naa leen bu baax a baax maa ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen ñëpp fépp fu waay nekk ak euh, li ko wër ci Italie alors xam ngeen ne fan yi yëpp ñu ngi di waxtaan ak yéen ci li ñuy wooye il decreto ayuti il decreto ayuti nag donc ñu ngi ko ñu ngi ko yóbbuwoon in consiglio dei ministri euh, le 17 mai bi passé ginnaaw bi nga xamante ni bi donc voté nañ ko le 2 ba càmbar ko ba xool ko alors décret boobu indi woon mesure bu am solo ñu koy woy donc bonus 200 euros pour ñenn ci liggéeykat yi euh, pensionnato yi ak ñi nga xamante ne bii ñooy def labor autonome donc décret bi bi mu njëkkee génn ñetti catégorie yooyu rek la fixé woon muy dipendenti lavoratori pensionati et euh, lavoratori autonomi donc ñu discuté war ci seen biir le 5 mai bi passé gën koo yokkaat yaatal ñi nga xamante ni bii ñoo ko mën a jël muy ñiy jël reddito di cittadinanza boole nañ leen ci lavoratori stagionali intermittenti incaricati alle vendite porte a porte dello spectacle ak euh, vendita a domicilio ak ñi nga xamante ni dañoo nekk disoccupati yi ak disoccupati agricole yi ñoo ñëpp boole nañ ci ak ñuy jël NASPI ak DISCOL donc looloo tax avant ñu publier décret bi une gazette officielle ñu yokkaat ko dolli ci yeneen xeetu liggéeykat yoo xamante ni mën nañ ne nekkuñu ci woon ñi ci gën a ràññee ñooy stagionale yi ak euh, ñi def lavoratore intermittente ñi am contratto co ñi nga xamante ni donc dañuy def laboratoire occasionnel maanaam daal mën nañoo jàpp ne bépp xeetu liggéeykat boo xamante ni bi rek doon nga jël ci bonus omnicomprensivo yi euh, ci 2400 euros yi ci décret yu mujj yi nga xam ne gouvernement Conté moo fa nekkoon alors boo amee réquisites yi di ko respecté ba tey man nga am ci décréto bii nii di ayuti te nekk 200 euros ñu ñu jagleel ko pour ñi nga xamante ni bi donc mooy ñooñu ñu leen ñu leen limal alors ci biir loolu ba tey wax nañu leen ne gën nañ koo yokkaat dolliwaat ci catégorie gi ñuy woyee donc golf et badanti ñu gën leen a xam ci laboratoire stage euh, laboratoire yi domestique yi donc disoccupateur yu jël nas bi ak disco bi bokk nañ ci ñu gën koo yaatalaat ba tey dolli ci catégorie gi ñuy woowee ñuy jël pensionné sociale invalidité civile donc ñun ñëpp boole nañ ci ak ñi nga xamante ni dañuy donc dañuy jël li ñuy woowee traitamento di accompagnamento à la pensione donc léegi catégorie googu yëpp bokk nañ ci ak laboratorio dello spettacolo ak intermittente intermittente nag bu ñu koy wax mooy contratto a chiamata képp koo xamante ni donc amoon nga contratto a chiamata te nga mën a am 50 giornate di lavoro nel 2021 rek euh, mën nga koo dugal ak xeetu liggéeykat yooyu nga xamante ni limoon nañ leen ko di di donc stagionale euh, ko ko ko alors laboratorio dello spettacolo ak intermittente ak incaricate alle di porta porta ñu ne ñi nga xamante ni bii dañuy jël nas bi ak discool ñooñu automatique lay ñëw ci ñoom bu fekkee weeru juin bi ba tey ñoo ngi jël désoccupato boobu noonu ñiy jël RDC yi tamit ñoom it noonu lay demee dinañ leen ko caricel ci seen donc RDC bi nga xamante ni bii euh, moom la ñu war a jël duñ def demande laboratoire yi ak dépendante yi ñoom it automatique lay doon ci ñoom duñ def benn demande ñoom it bu ñu leen di jox seen bourse de paga weeru juillet IMSS dina leen ko fayaale tramité seen datore di lavoro pensionnato yi tamit bu ñu leen di fay ci weeru juillet ñoom dinañ am bonus boobu direct ci seen pensionné jurut ñu def demande donc catégorie bi nga xamante ne bi donc ñoo du def demande wax nañ leen ko mooy ñiy jël reddito di cittadinanza lavoratori dipendenti yi nga xamante ni dañoo am datore di lavoro pensionnato yi ak ñi nga xamante ni bi donc ñooy def disoccupato discol wala disoccupato agricole bu dee disoccupato agricole nag na fekk ne disoccupato agricole bi nekk ci l'année 2022 bii nii compétence bi di 2021 donc boobaa di nga am donc bonus bi IMSS dina la ko verser directement ñooñu ñooñu ñi nga xamante ne bi ñoo def euh, demande alors ñu ñëw ci bu leneen li ñuy fàttali mooy euh, requisite essentiel bu bonus 200 euros bi mooy il faut que réduit reddito annuel. moo xam laboratoire autonome nga catégorie gi ñu leen limal fii yëpp rek sa résultat annuel wërta ëpp 35000 euros donc loolu mooy réquisite essentielle bi mën nañu donc bonus 200 euros bi pratiquement amul réquisite yu métti yu ci am bonus la boo xamante ni bi rek gouvernement bi daf ko génne pour dimbalee ko képp koo xamante ni liggéeykat nga rek mu toll ci 200 euros bariwul pour nga dimbandikoo ko jëm ci li nga xamante ni moom mooy caro bolet ak caro euh, caro énergie ak euh, caro benzina alors loolu moom mooy li gën a fes ci di DLA IoT kon ñu ne na fi décret yi daan amee réquisites yi metti trop trop bi pas daanaka loolu amu ci comme lu ñuy jox ñëpp la rek mooy catégorie gi ñu leen limal te réquisites yi essentiel mooy yow sa rédito bu mu ëpp mille euros ci at mi ginnaaw bi nga xamante ni bii bokk nga ci catégorie yi ko mën a jël wax nañ leen ñi nga xamante ni bii ñoom ñoo koy jël automatique ak ñi nga xamante ni bii donc ñoom ñoo war a def euh, euh, euh, demande alors ñu leeral benn affaire laboratoire autonomie yi nga xamante dañoo yor partita IVA wala senza partita IVA ñooñu dañuy def demande mais ci kaw demande boobu il faut que ñu xaar IMS génne benn circulaire boo xamante ni bii donc euh, dina am en collaboration avec euh, le ministre du travail ñu koy le ministre du lavoro bu ko defee ñu mën a définir donc euh, indication yi ak ni nga xamante bi laboratoire autonome bi noonu la mën a defee demande bi pour ñu mën ko koo fay ginnaaw bi nga xamante ne bi réquisite essentiel bi mooy sa ré sa sa sa reddito annuel donc bu mu passé 35000 euro reddito bi nag ñu ngi mi ngi concerné mille vingt 2021 kon laboratoire autonomie dañuy xaar circulaire IMS boo xamante ni dinañ ci déggoo ak ministre del lavoro pour ñu mën a xam kañ lañ mën a def seen demande ak nan ak lan lañ koy defee ginaaw bi nga xamante ni IMSI dina ko publier ci sitam wax ne demande yi commencé na lii ak lii ak lii lañ koy defee te loolu moo ngi gën a concerné laboratoire yi autonomie yeneen laboratoire yi war a def demande yépp ñoom dañuy xaar IMSI dugal donc link bi bu ko defee ñu ne demande yi commencé na bu boobaa dinañ ko mën a def euh, réquisite essentielle bi wax nañ leen ko donc sa réduite bu mu ëpp 35000 euros il faut nga am speed ce sa codice IBAN intestato à la personne qui fait la demande ak donc c'est euh, c'est euh, référence yëpp bu ko nous ñu mën la defal demande bi ñuy fàttali ba tey bonus 200 euros bi bépp mbok taalibe bo xamante bi am nga ci jafe-jafe wala bëng ko def donc boñu consulter ak say requisites IBAN sa codice fiscale donc sa codice speed dinañ la défal demande bobu nonu ci site IMS bi envoyé la receveur bi ginnaaw bi nga xamante ne bi réquisite yi am nga ko te nee nañ réquisite essentiel bi mooy sa réduite annuelle bu mu ëpp 35000 euros te nga nekk ci catégorie liggéeykat yooyu nga xamante ne bi tudd nañ leen bu dee liggéeykat bi waroo jël pensionné waroo jël réducteur di stade naan sa dina ñëw automatique sa bourse de paaga donc loolu moom mooy li gën a fës ci euh, décréto ayut yi ñu ne liggéeykat bi na ko xaar bourse de paaga bu luul yo mook pensionnat bi ak ki nga xamante ni donc day jël REDC ak désoccupato bi nga xamante ne bi la nekk wala DISCOL wala désoccupato agricole te weeru juin bi fekk ko muy jël donc désoccupato boobu noonu alors wax nañu leen laboratoire yi ko mën a jël donc ci ci ci ci ci ci ci ci xeetu laboratoire yi stagionale yi ci lañ bokk mooy ñu ko doon jël rek ci euh, decreto omnicomprensivo 2400 euro bi ñoo ñëpp mën nañ koo jël ginnaaw bi nga xamante ni bi am nañ 50 jours de lavoro ci vingt 2021 bi donc autonom autonomo senza partita IVA na fekk ñu inscrire alla gestione separata INPS ba pare tamit ñu am almeno benn contre contributi boo xamante ni bi verse nañ ko ci ci ci at bi ci ci benn weer ci 2021 bi donc fini ñuy jeexale le laboratoire de dello spectacle. requisité moi au moins moom na am 50 contributi giornaliere ci 2021 bi bu ko defee dina mën def demande ñu ne ñii demande laboratoire domestique yi yi nga xam ne am in regola golf et badanti nous de dañuy def demande ñi nga xamante bi dañoo am contrat di rapport de collaborazione coordinata et continuativa Nous tamit dañuy def demande nous bi nga xamante inscrire nañ ci la gestion séparata IMS tañ am contrat bu ubéku ci date bi nga xamanteni bi donc bonus bi dugg na en vigueur di le 18 mai. alors incaricati à vendita à domicilio kon partita IVA ñoom it dañuy def demande ginaaw bi nga xamanteni bi am nañ reddito bo xamanteni bi supérieur 5000 euros manam ëpput 5000 euros ñooñu dañuy def demande. ñu ne laboratoire yi autonomie tamit dañuy def demande ginnaaw bi nga xamante ni bi dañuy xaar IMS ci benn circulaire ak mu leeral ko moom ak ministre de laboro pour ñu ne nii la ñuy defee demande bi ak euh, waxtu sàngam lañ koy def loolu bu buñ sukkandiku ci article 33 del DLAUT moom moo xamle ne ñii ci laboratoire yi autonomie il faut ñu xaar circulaire bu jógee IMS ak euh, ministre del lavoro ñu leeral leen maanaam wàllu rédito yi xam nañ ne sax rédito yi du ëpp 35000 ak kañ lañ mën a def demande bi ak euh, kañ la ñuy jot euh, xaalis boobu noonu donc leneen li nga xamante ne bi tamit moo ci moo ci gën a moo ci gën a fës moom mooy ne DLA AUD bi wax nañ leen ko guvernement bi daf ko génne pour dimbale rek nit ñi donc réquisites yi daanaka méttiwut képp koo xamante ni bi am nga partita IVA nekk laboratoire autonome intermittenti, occasionali, gestione separata IMS, incaricati alle vendite porte a porte, eh, autonomie privée di partita IVA ak ñi nga xamante ni bi ñooy stagionale intermittente ñu yor contrat ak Camata ñun ñëpp mën nañ koo dugal ginnaaw bi nga xamante ni bi ci 2021 bi am nañ 50 jours de lavoro yu ñu mën a démontrer ñiy jël nas bi ak discol automatique lay ñëw ci ñoom ñi ñiy def désoccupation agricole ñooñ tamit IMSS dina leen ko versel ginnaaw bi nga xamante ni bi euh, désoccupation agricole boobu noonu 2021 euh, la woon compétence 2021 la woon ñu leen koy fay ci 2022 bi perceptori di RDC automatique lay doon pensionnato yi léegi yaatal nañ ko dugal nañ ci donc invalidité civile yi dugal nañ ci jël pensionné sociale yi ak ñi nga xamante ni donc dañuy jël li ñuy woy accompagnamento di di di prestazione d'accompagnamento de la pensione ñoo ñëpp dugal nañ leen ci kon daal ñu xam leen ne decreto aiuti bi alors képp koo xamante ni bi rek bonus onnicomprensivo jëloon nga ko alors catégorie yooyu yëpp doon ko jël automatique rek alors ñoom mën nañ cee amaat mais nag wax nañ leen ko am na ñu koy am automatique am na ñuy def demande ñuy def demande wax nañ leen ko ñi nga xamante ne ñoo ci am ñoo ci def euh, alors ñoo koy jot automatiquement wax nañ leen ko ñi koy jot automatique mooy laboratoire dépendant yi am seen laboratoire di laboratoire am contrat bu ubbeeku di liggéey pensionato yi ak ñi nga xamante ni bi ñooy jël reddito di cittadinanza ak ñi nga xamante ni bi ñooy jël NASPI wala DISCOL wala disoccupazione agricola te fekk ci mois de juin bi disoccupato boobu noonu di dox ba tey bu passé ñooñu yeneen xeet ci des yépp dañu def demande moo xam lavoratore autonomo la stagionale la golfo e badante incaricati alle vendite porta a porta lavoratore dello spettacolo intermittente mooy ko am contratto a chiamato te mën jours de lavoro ci 2021 bi te sa reddito ëpp 35000 euros yow di nga mën a def demande bi kon loolu mooy li gën a fës ci décréto ayuti ginnaaw bi nga xamante ni bi démb dugg na in gazzetta ufficiale mu des rek IMS génne benn circulaire ngir wax ne demande yi euh, bës sàngam lay commencé ba bés sàngam euh, te donc demande yooyu li koy def xam nañ ko ki koy def il faut mu am SPID cotisé ibaanam bu nekk ci turam ak cotisé fiscalam donc yooyu la ñuy présenté demande bi comme niñ ko waxee ci début vidéo bi képp koo xamante ni bi donc am nga réquisite yooyu yëpp donc bu boobaa di dinañ la mën a defal demande bi te jàpp nañ ne ñi doon am bonus 2400 euros bi yëpp muy weer yi passé ñoo ñëpp dugalaat nañ leen ci bonus 200 euros bi nii ginnaaw bi nga xamante ni bi donc réquisite yooyu am nañ ko muy sa réduite ci 2021 bi bu mu ëpp 35000 euros te donc na fekkoon nga bokk ci xeetu liggéeykat yooyu xam ne lim nañ leen donc loolu moo gën a fës ci décret ayuto bi leneen li ci des mooy il piano escroc waxoon nañ leen ko ba tey moo ngi continuer demande yi ubbeeku ba tey jëm jëm ci ñu yor partita IVA te mu nekk benn genre cassa d'integrazione bu ñuy fay laboratoire autonome bi am partita IVA di fay ay contributing ba pare donc euh, inscrire à la gestione separata INPS moom xam ngeen ne il piano ISCRO depuis 2021 moo ngi fi 2021 la laboratoire bi dina ko mën a dugal entre avril ba octobre dina ko mën a dugal te bu ñu ko ko accepté le minimum dina am 250 euros par weer maximum dina am 850 euros euh, par weer ça dépend ci ay contributé am ak euh, donc par temps evam fan la tolloon ci ay réditom kon daal ñu xam ne modification yi bees yi ñu indiwaat ci DLA ayuti mooy dugal nañ ci pensionnato yi dugal nañ ci donc invalidité civile yi dugal nañ ci donc ñiy jël assainissement assegno sociale dugal ci donc ñi nga xamante ni bi ñoo ngi jël li ñuy woowee donc trattamenti di accompagnamenti alla pensione ñiy jël NASPI discol agricole intermittente dello spettacolo incaricati alle vendite porta porta ak ñi nga xamante ni bi donc ñooy laboratoire stagionale yi te doon am bonus stagionale yi onnicomprensivo donc lii mooy li nga xamante ni bi moom lañ bëggoon a egg mbokki taalibe yi bi nga xamante ni bi décréto aiuti publié nañ ko démb ci gazette li ci des mooy xaar IMS ci ay fan yu néew circulaire génn demande yi kañ lay commencé bu ko defee mbokki taalibe yi ku ci yittewoo incha allah dinañ la defal demande bi comme ni leen ko doon defalee envoyé leen seeni receveur ci kàttanu yàlla di leen xam le ne rek donc yéen ñi amoon bonus omnicomprensivo yépp mën ngeen cee dugalaat ndax catégorie googu yépp dugal nañ leen ci décret bi ginnaaw bi nga xamante ni bi sa réduite rek bu mu ëpp 35000 euros te te nga nekk Italie boo yoree parta IVA parta IVA bi na ubbeeku te nekk donc à la gestione separata IMS ñu ne am na yeneen catégorie yoo xamante ni ñoom ci autonomie lañ bokk seen sa partita IVA ñooñ tamit bokk nañ ci demande bi mën nañ ko dugal ginnaaw bi xamante ni bi seen réduite ëpp loolu muy 35000 euros donc mbokk yi lii moo gënoon a fës ci vidéo tey bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm seen mbokku taalibe Mor Talla Sarr jërë ngeen jëf di xam le ne lii vidéo flash la rek buy wane ne lii moo ci bees démb lañ ko publier li ciy des mooy xaar ci ay fan IMS génne circulaire buy xam le ne nii la ñuy defee demande bi jour sàngam lay commencé ba jour sàngam bu ko defee mbokku taalibe yi loolu mooy réquisite yi am SPID ak sa cotisé IBAN ak donc bokk ci catégorie liggéeykat yooyu mbaa nga nekk autonome dinañ la ko mën a defal comme nañ ko daan defalee mbokki taalibe yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr jërë ngeen jëf